ay ca mërit ay ca mërit ay ca mërit kooku mor la nga def yaa ngi sant sëñ Tuubaa sama dooma di moom laa tudd sëñ mor la am sëñ son foo jëm ne da ngay bay te kees ga waaw ba te jàng tey julli tey liggéey fu ñu liggéeyee na nga daal liggéey tabaarkalla noonu la dooy murit di mel dooy daa war a murite bu ñuy bay muy bay ñuy jàng mu jàng ñuy jàng bu ñuy julli ñuy julli mu <laughs>